leen wax état vraiment ñu jël disposition yëpp ba ñi nga xamante ni ñoo def jëf ci ñaaw jooju ñu mën leen traqué jàpp leen ndax nag jàpp naa ni jigéen moom ku ko teral teral nga réew mi te dañoo nekk si mois de la femme donc tey jàpp naa ni jigéen ñëpp war nañoo ànd farlu ni lii ñu di def suñu sœur boobu di Maimouna Ndour Faye jàpp naa ni réew jàmm moo koy defal mais agression parce que Sénégal nag kenn mësu koo xam si agression Sénégal jàmm moom bu sa am jàmm jooju nag moo tax ñu jóg